On va vérifier si tu bois modérément. Le 16 août 1912 regardez cette image ñi ngeen gis ay indigènes lañu ces gens que vous voyez mooy seeni maam mooy samay maam mooy sunuy maam ñii tubaab yi dañ leen a tudde woon ay indigènes maanaam amuñu nationalité française amuñu benn kayit gu tax ñu mën leen a considérer doomu aadama en temps plein moo tax ñu leen doon woowee ñu salte ñi ñu bokkut ci ñun ñi les indigènes bref euh, bis ni ki tey le 16 août 1912 ci la ñu daal di tëggaat justice su Sénégal daal ne bis ni ki tey ñoom ñi ñuy woowee ay nit ñu salte nit ñu bon nit ñu bokkut ak ay sous ni ko tubaab yi doon tuddee mën nañ leen a yóbbu ci tribinal yi di leen atte nag bu ñu defee ay musiba mbala bu ñu amee lu leen naqari ils sont devenus justiciables à partir de maintenant les indigènes euh, des tribus des cercles originaires d'Afrique occidentale française n'ayant pas les statuts de citoyens français dans leur territoire d'origine ñi nga xam ne ci seen seeni réew lañ dëkk te amuñu benn légitimité maanaam ñooñu nga xam ne ay bàyyi ma rek la tubaab yi nag doon noo yàgg a fontoon mm-hmm. lii boo koy nettali ay set war na noo am lu leen naqari de dikk sa réew <laughs> moo tax eh, Serigne Touba bi ko gouverneur ne lu tax nga gën a ndaw ci Serigne si te magoo leen mm-hmm. ñu naan la grand marabout Serigne Touba dane ko lu tax ñu naan la gouverneur te ko fi <laughs> te muy dëgg yow xamuñ la xamoo xamooñu waaw nga xëy xëy ñëw indi say say ko say sikkim ne yaay gouverneur du réew mi c'est tellement écœurant mais bon par devoir de mémoire, il faut rappeler. Donc c'était au jour d'aujourd'hui que les indigènes, le 16 août 1912, ont commencé à bénéficier de, des, des, euh, des jugements dans les Voilà. Le 16 août 1984, le 16 août 1984 ci la kon Sénégal ratifié convention bi nga xam ne moom mooy jox droit ak ak yelleef ci mboolem réew yi ci àdduna bi ci géej gi mu moom ay côtam côte yi nga xam ne moom mooy tefesu Sénégal toll na ci 718 euh, kilomètres li ko dalee but ba but fi tàqalikook ñun ci Guinée Bissau jële Ziguinchor dem ba Ndar ba séq ñu Mali euh, astafurlah Mauritanie am nañ 718 kilomètres de côte ñun Sénégal ñu bokk ci li ñuy wax ZEE ZEE e, muy zone économique exclusive bis ni tey kon la ñu signé woon protocole boobu dal ne suñuy côte bokk nañ ci plateau bi nga xam ne mën nañ ko weccandi ak adduna bi ku nekk mën na cee am jëflante ak ñun on a ratifié ça le 16 août 1984 aujourd'hui sa crée beaucoup de pen Regardez cette image, c'est de la Santé en 2019 avec euh, le japonais, euh, le, le, le, le, comment, au Sénégal. Il s'appelle monsieur Tatsuo Arai, ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, échangeant ici 16 août bis ni ki tey en 2019 mémorandum boobu ñu ngi ci waxoon ne coopération bi nga xam ne moom moo dox ci diggante euh, Sénégal ak Japon ci wàllu santé ak bien-être loolu la ñu ngay wéy di ko respecté euh, ci diggante jëflante bi am ci diggante Japon ak Sénégal ñi xaati moom mémorandum boobu ba doon ci jëflante mooy ki nga xam ne moo fi teewal réewu Japon euh, di Tatsuo Arai ak monsieur le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr c'était bis ni ki tey en 2019 le 16 août allez on va regarder le saviez-vous avant de revenir euh, dire bonjour à nos euh, invités le saviez-vous allez le saviez on a euh, prévu de vous donner quelques astuces quelques informations pas du tout des ouf mais quelques si Grégoire le permet bien wala li mu naan dafa bëri ah je vous l'aurais dit ah dès le début de l'émission Seydou waxoon naa la Seydou eh euh. <laughs> <laughs> la nuit c'est fait pour dormir Seydou il faut dormir nga ma da ngay seetaan seetaanoo dara nga naa ma nag yow nga nelaw fi yëpp nga naa ma nag <laughs> alors euh, Grégoire si c'est bon pour euh, pour la pour les <laughs> éléments de le saviez-vous on y va si c'est pas encore bon on saura que tu as bu beaucoup euh, et puis c'est ton droit le plus absolu hein je ne te juge pas ok tu as beaucoup bu merci beaucoup alaaji daam maa ngi lay nuyu di la siyaar maa ngi lay delloo ziar Pape Sidi noo def ak ñu ngi sant yàlla bu <laughs> baax a baax tawfeex alhamdulilah macha allah ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar di ñaanal ñëpp semaine jàmm jërëjëf di wax ne comme ni nga ko commencé di wax ne Sénégal ak Mali mhm. ñoo bokk benn devise dëgg la un peuple un but une fois le Mali aussi pareil donc ñaari dëkk yooyu gis naa ne jàmm rek moo ci nekk. Mhm. yàlla na ci jàmm sax di ñaan aussi jàmm Haïti di ñaan jàmm Afghanistan di ja ñaan jàmm fépp ci àdduna bi. Mhm. yàlla teggil ñu mbas mi. que di ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen wax ne ñu ñaan que semaine bi ñëpp sauté de joie. Mm. di am tawféex di am mbégte di toogaat fii si euh, chaque lundi ci rubrique euh, tourisme culture et artisanat waaw c'était ça. Euh, tey on va parler de quoi tu as invité une dame de fer qui font qui font dans la transformation des produits naturels je te laisse nous présenter notre euh, maman qui est déjà avec nous sur le plateau. d'accord Alaaji Dame bisimilah. Euh, maman Diossi c'est Adja moom moom mooy euh, présidente réseau euh, Dooleel